أحمد ربا كون حولي ألنا حصمني من العذاب ولنا أحمد ربا كون حولي علنا عصمني من العذاب ولنا أحمد ربا كون حولي ألنا حصمني من العذاب ولنا صان جحاتس تباق أحسنا لي ظاهري وباطني فحسنا حبي له وللنبي تبينا وليما اختاره قد عينا أشكره شكرا يزيد يقنا ولي لا يفدي دواء يقنا بجلني مغن كريم مكنا وطيب الرزق لنا والمسكنا إلي قاد الله أجرا حسنا ويقظا طيب لي والوسنا لي قاد في نومي سرا بتنا وبي يباحي كل من تفتنا جمال ربنا توجعلنا بغير مكر ذات نذو لنا نفى العزيز ما يجر الوصنا لغير نحوي ولغير ينسنا نفى الذي كيد الأحد وحنا شكيحنا في كونه لي وحنا حدمت بالله بنا من لعنا بلا لقاء والإله معنا تبت له من غير شكر علنا وقعد لي منه تعالى ولنا سن محمد المهدي إبراهيم الحمد لله ñu ngi sant yàlla. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di julli gërëm ay saxaabaam. di gërëm ay saxaabaam. ak xulafaaw yi nekkaloon yi nekkoon. ak awliyaaw yi nga xam ne ñoo jàpp ci diina ji ba mu agsi fii. ak awliyaaw yi nga xam ne ñoo jàpp ci diina ji ba mu agsi fii. di gërëm bu baax Mawlana Cheikh Ahmada Tijaani radiyallahu anhu ak Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu di gërëm suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ndax ñooñu ñoo tax Sénégal ak fii tey yónni. sëriñ bi nag moo ñu yónni. nee na bëggoon naa ñëw sax. bëggoon naa ñëw sax. ndax dëgg-dëgg jaral nga ko loolu. te mu ne mu ngi fàttaliku ko ci taarix. suñu waajur waajur. Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacké. ak Cheikh Ibrahima Niass. ak Cheikh Ibrahima Niass. radiyallahu anhuma. liggéey yi nga xam ne liggéey nañ ko ci Sénégal. liggéey yi nga xam ne liggéey nañ ko ci Sénégal gi rawati Kaolack. rawatina Kaolack. suñ demee ba Kaolack mel nii. suñ demee ba Kaolack mel ni mu mel ne tey. nga xam ne diine nga fay soo duggee rek. te soo fa duggee rek. boor boo ko duggee. ko duggee. moo xam nga jógee kawoon. moo xam nga jógee kawoon. wala nga jógee ci yoonu Dakar. yooni Dakar. wala nga jógee ci wala nga jógee ci yooni Jurbel. foo jógee boo mën di jógee duggee ko Kawlax rek. wala nga jógee wala nga jóge ko ci yooni Gàmbi gële yooni Pont Noiro foo dugg rek foo dugg rek da yëg diine da nga yëg gis nit ñu baax da nga te loolu yëpp jëmm yooyu ñoo ko liggéey te àddina yëpp gis nañ nañu seen liggéey boobu comme ni ko Sidi Habib suñ doom waxee comme ni ko Sidi Habib suñ seen doom waxee ñaar ñooñu niñ meloon. ñaar ñooñu niñ meloon. ak jàngale yiñ fi bàyyi. ak jàngale yiñ fi bàyyi. ci jokkoo. ci jokkoo. jokkulante ay mbokk. ci jokkulante ay mbokk. ñëpp gis nañ loolu. ñëpp gis nañ loolu. mais comme ni ñu yonent bi wax laa yuminu ahadukum hattaa yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi du ngeen gëm yàlla lu dul ne bëgg ngeen seen moromi jullit yi ni ngeen bëggee seen bopp. mu ne comme li yonent bi wax du ngeen gëm yàlla mukk ndere bëgg ngeen seen moromi jullit yi ni ngeen bëggee seen bopp. mu ne ñaar ñooñu jàngale nañ loolu. mu ne ñaar ñooñu jàngale nañ darsu boobu. te ñu ngi ko jëlee ci maam yi. te ñu ngi ko jëlee ci maam yi. maam ku mel ni maam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ku mel ni maam El Hadj Abdoulaye Niass radiyallahu anhu te xam nañ ne sëriñ bi loolu yow yaa ñu ko gën a xam. ndax fekkee nga ci lu bari muy jamono bu jafe. muy tombeeg jamono bu jafe. kii nekk Medina. kii nekk Medina fi. kii nekk Ndorong. kii nekkee Ndorong sanc fa. ñu takkoo dëkk di jëflante. joxe ndigal. di joxe ndigal. ba sëriñ bi waxoon ne mboolem taalibe buy murit na nga dem jullee ji Madina. ba sëriñ Basiru waxoon ne mboolem taalibe bu ajjuma jotee. mboolem taalibe murit bu ajjuma jotee na nga dem jullee ji Madina ajjuma. te loolu ba te loolu ba jamono ji mu ngi fay dox. te li tax mu dox. te li tax mu dox. mooy njaboot gi. mooy njaboot gi. suñ gisee seeni sëriñ seeni buñ gisee seeni sëriñ ak seeni njiit juboo bennoo. bëggante. bëggante. di jokkoo. loolu dañ leen koy wàll. loolu dañ leen koy tëbbu. ba ñoom seen bopp dañuy ba nga xam ne ñoom ci seen bopp dañuy bëggante. soo demee Kaolack. soo demee Kaolack. Ndorong. Ndorong. da ngay gis ne da ngay mel ni Medina nga dëkk. dafay mel ni na nga dëkk. photo Serigne mu ngi jaxasoo ci benn bitig wala benn marché. photo Serigne Touba photo Cheikh Ibrahim yëpp ñu ngi jaxasoo ci bitig yi ci biir taalibe yi ci marché yi ci oto yi. juboo amutoon loolu du am. te su juboo amutoon loolu du am. photo yi yëkkatiwuñ yooyu yëkkatiwuñ leen de. waaye li muy wane. waaye li muy wane. mooy ñaari borom photo yii. mooy tegtale ne ñaari borom photo yii. seen njaboot bëggante nañ. seen njaboot bëggante nañ. te loolu yëpp yéen ko liggéey. te jàppante googu yëpp yéen ko liggéey. yow sa liggéey. Kaolack yëpp xam yow sa liggéey sëriñ bi Kaolack yëpp xam nañu ko. Sénégal yëpp xam nañ ko. Sénégal yëpp xam nañ sa liggéey. addina yëpp xam nañ xam nañ sa liggéey. moo tax sëriñ bi di wax ne. moo tax sëriñ bi di wax ne. suñ nañ la ndokkeel. suñ ñëwee nañ la ndokkeel. ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nga ko ci senegal ci taxawaay bi nga xam ne taxawee nga ko fii ci Sénégal. rawatina ci jamono jii bi nga xamee ne jafe-jafe yu métti amoon na ci senegaal jullit yi ak sëriñ si liggéey nañ ci de. jullit yi ak sëriñ si liggéey nañ ci de. waaye liñ ci liggéey. waaye yow liñ ci liggéey. Sénégal yëpp gis nañ loolu. Sénégal yëpp gis nañ loolu. moo tax mu ne njàmbaar googu. moo tax mu ne njàmbaar googu. ak xam-xam ak xam-xam boobu. bëgg ak mbuggeel gi nga bëgg senegaal def leen ñoom ñëpp ñu nekk sa njaboot. def leen ñoom ñëpp ñu nekk sa njaboot nga jaboote leen. mu ne loolu jàngale gu rëy la. mu ne jàngale la. boo xam ne képp kuy jullit. jàngale la goo xam ne képp kuy jullit. nga cee war nga cee roy. moo tax mu gërëm la ci loolu. moo tax mu gërëm la ci loolu. ne mu ngi lay ñaanal nee na waxtu wu nekk mu ngi lay ñaanal yàlla. waaye mu ngi sàkku ci yow tamit ñaan. waaye mu ngi sàkku ci yow tamit ñaan. ndax mag ñee fi nekkoon. ndax mag ñee fi nekkoon démb. di ñaanalante. di ñaanalante. di dimbalewante. di dimbalewante. di di wéttaliwante. ba léegi. ba léegi. mu ne nag jamono fi mu ne jafe na lool. mu ne jamono fi mu ne jafe na lool. ndax nit ñi fi mu ne dañoo am xurri dañoo am liberté. ndax nit ñi fi mu ne dañoo am liberté. foog ne wax lu leen neex rek. foog ne wax lu leen neex rek. mooy àddina. mooy àddina. te mu ne loolu réer paase wu te mu ne loolu réer paase wu ko. moo tax mu ne xam na ne seen liggéey bi ñu leen teg diis na lool. moo tax mu ne xam na ne liggéey bi ñu leen teg diis na lool. waaye ngeen wéttalihante. waaye ngeen dana gën a dimbale njaboot gi. loolu dana gën a dimbale njaboot gi. mu ne tamit seetlu na lenn. mu ne it seetlu la lenn. diine lislaam. diine lislaam. dafay dem ba mel ni lu tumuranke. dafay dem ba mel ni lu tumuranke. fekk boobu la ko yàlla gën a taxawal. fekk booba la ko yàlla gën a taxawal. ndax mu ne xew Corée du Sud. booy seet li xew Corée du Sud. ak li xew Pakistan. ak li xew Pakistan. ak li xew ci àddina bi yëpp. ak li xew ci àddina bi yëpp. ñëpp a ngi daw rek jëm ci yàlla. ñëpp a ngi daw rëcc rëcc loo jëm ci yàlla. di daane seeni estat yi. di daane seeni estat di tudd yàlla. di tudd yàlla. te loolu yëpp. te loolu yëpp. liggéey nit ñu baax ñi rek ñoo ko waral. liggéey nit ñu baax ñi rek ñoo ko waral. mu ne gis na sax ne diine lislaam ci boppam. mu ne gis na sax ne diine lislaam ci boppam. am na ñoo xam ne doxuñ jullit de. am na ñoo xam ne doxuñ jullit de. waaye dañuy dugg ci diine ji. waaye dañuy dugg ci diine ji. di ko mbubboo. di ko mbubboo. fekk pour xeex lislaam rek moo leen yëkkati. fekk pour xeex lislaam rek. moo leen yëkkati. te mu ne ni mu amee ci diine ji. te mu ne ni ñu amee ci diine ji. noonu la amee ci tariqa suufiya. noonu la amee ci tariqa suufiya. xam ne ñu bëree ngi wax ne ci lañ bokk. nga xam ne ñu bëree ngi wax ne ci lañ bokk. waaye tey lañ gën a ñaaw làmmeñ. waaye tey lañ gën a ñaaw làmmeñ. lañ gën a foog dañoo war a ñeme. tey lañ gën a ne dañoo war a ñeme. te te ñemewuñ sax. waaye dañoo réer. waaye dañoo réer. parce que ku réer rek mooy ñeme loo xam ne dafa raglu. ndaxte ku réer rek. moo ñeme loo xam ne dafa raglu. dinañ bàyyi daan na nettali. ndax bàyyi radiyallahu anhu daan na nettali. ne dafa am benn bés. mu ne dafa am benn bés. benn gaynde xëy fajar rek dugg ci benn gaynde xëy fajar rek dugg ci biir dëkk bi dem tëdd ci penc ma. mu ne bi bët setee. mu ne bi bët setee. xale yu ndaw yi nga xam ne xamaguñ luy gaynde. xale yu ndaw yi nga xam ne xamuñu luy gaynde. ñoom ñëpp ñu daw rek dem ci gaynde. ñoom ñëpp ñu daw rek dem ci gaynde ga ci fam tëdd. ñii di egg ci koom. ñii di suqi karaw yi. ñii di suqi karaw yi. gaynde gi bàyyee leen boppam rek. gaynde gi bàyyee leen boppam rek. waaye mu ne seen waajur yi. waaye mu ne seen waajur yi. biñ génnee. génnee. ku xool penc mi xool penc mi. gis gaynde rek. gis gaynde ga fa mu tëdd. mu daw rek ne woy rek nga daw yooxu ne woy gaynde. rek du ci biir. rek duggaat sa biir nekk tëju. mu ne ñooñu ñoo xam gaynde. mu ne ñooñu ñoo xam gaynde. waaye ñi nga xam ne dañoo foog si. gaynde yu am ni ñoom ñoom lañ bëgg a jël di leen kallikale waaye ñi nga xam ne dañoo foog ne sëriñ si gaynde yu am ni ñoom dañ leen a bëgg a jël di leen kallikale ñu ngi ci danger bu mag ñu ngi ci danger bu mag te suñ delluwut gannaaw te bu ñu delluwut gannaaw du baax du baax waaye mu ne nga ñaanal leen waaye mu ne nga ñaanal leen ndax loolu manqué manqué rek la ndax loolu manqué manqué rek la ak ñàkk xam ak ñàkk xam-xam ak ñàkk imaan waaye sëriñ si ku leen xam waaye sëriñ xam xam ne taxawal alquran da nga xam ne di jàng alquran di di ko jàngale di julli di yar seen njaboot di yar seen njaboot leen dimbale ba nga xam ne àdduna yëpp ñu ngi dimbandikoo seen jàng di leen dimbale ba nga xam ne àdduna yëpp ñu ngi dimbandikoo seen i njàng ak seen xam-xam mu ne seen liggéey dëgër na dëgëraay boo xam ne. mu ne seen liggéey dëgër na dëgëraay boo xam ne. dara mënut koo màbb. dara mënut koo màbb. te loolu rek mooy li xew ba jamono sosoo ba léegi. te loolu mooy li xew depuis ba jamono sosoo ba tey jii. jamono yonent yi jiitu woon. li ko dalee ci jamono yonent yi jiitu woon. ci jamono yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba bés gii tey te loolu yëpp te yëpp. jokku mbokk rek. mbokk rek. ak di dimbalante. ak di dimbalante. gis ne alxalqu yàlla la gis ne mbindeef yi njabooti yàlla lañ. gis yi yàlla lañ. te ëpp ci ñoom yërmande. moo gën ca yàlla. gën ca yàlla. ñu tëjee wax ji nag. waxtaan boo xam ne daf koy faral di nettali sëriñ bi. benn waxtaan boo xam ne. sëriñ bi daf koy faral di nettali. ci ànd bi nga xam ne yéen a koy ànd. ci ànd bi nga xam ne yéen a ngi ko kóllëre wante di ko ànd. ba nga xam ne loolu moo waral suñ ñëw bii tey. ba nga xam ne moo waral suñ ñëw bii tey. loolu ni muy nasaxalee. loolu ni muy nasaxalee. képp koo xam ne rek yéene képp koo xam ne rek. ay bu lëndam nga am lii xew nii tey. lii xew nii tey. am na addina bi yëpp danañ ci kontaan. addina bi yëpp danañ ci kontaan. waaye am na am benn benn yoo xam ne. waaye am na benn benn yoo xam ne. dina def feebar bu métti ci seen xol. dina def feebar bu métti ci seen xol. te réer rek moo ko waral. te réer rek moo ko waral. koo ci laajoon sax. koo ci laajoon sax. du du lay mukk ba indi li tax ne moo am dëgg. du lay mukk ba indi li tax ne moo am dëgg. mu ne am na benn bés. mu ne am na benn bés. dafa am benn buur. dafa am benn buur. benn dañ koy nettali benn golo ñëw dugg ci toolam di lekk. lépp bu ñuy nettali la benn golo. ñëw bés ci toolam. di lekk tool ba. mu jàpp golo gi. mu jàpp golo gi. ne ko demal ne ko demal bu subaa nga dellu si. ne yi su ñëwee rek ray na gars yi bu golo gi ñëwee rek rey leen ko. golo gi tamit ñu dee ko ne nee na suba soo dañ lay golo gi ñu dee ko ne ko buur bi nee na joxe na ndigal bu subaa boo delsee fii nañ la rey. golo gi dem ci mbokki goloom yëpp. golo gi dem ci mbokki goloom yëpp. ne leen buur daf maa jox rendez-vous suba. daf maa jox rendez suba ca toolam ba. mu ne daf may rey. mu may rey. golo yëpp bëbb rek rek ànd ak moom. doon ay téeméeri téeméeri golo. doon ay téeméeri téeméeri téeméeri golo. ñëwee uy si buur bi. biñ ñëwee uy buur bi. buur génn. buur génn. ne ana golo gi. ne ana golo gi. ñu ne ñoo ngi nii. golo yëpp ku ci nekk ne ko ñoo ngi nii. ñoom ñëpp ñu waxandoor ñoo ngi nii. ñoom ñëpp ñu waxandoor ñoo ngi mu ne golo gi laa wax. mu ne golo gi ma bëggoon a rey laa wax. ñu ne ko ñu ngi nii. ñu ne ko ñu ngi nii. mu ne kon nag dem mu ne kon nag dem leen. kon yéen ñëpp ay golo ngeen. kon yéen ñëpp mbokk mee ma seen mbokk mee ma tooñ. te gisuma ko ci seen biir. te gisuma ko ci seen biir. dem dem leen. mu ne ànd tamit. mu ne ànd tamit. ànd mbokkoo. ànd mbokkoo. loolu rek lay indi. loolu rek kenn du leen mënal dara. kenn moo tax nag yéen a féetee muñ. moo tax yéen a féete muñ. seen seen der bi nit ñaa ngi koy tagg. seen der bi nit ñaa ngi koy tagg. nit ñaa ngi bind ay livre ci yéen. nit ñaa ngi bind ay livre ci yéen. ñaa ngi def ay xutba ci yéen. nit ñaa ngi def ay xutba ci yéen. nit ñaa ngi def ay ëbyaat ay woy ci yéen. nit ñaa ngi def ay woy ci yéen. waaye am na loo xam ñoo xam ne loolu yëpp gisuñu ko dégguñu. waaye am na ñoo xam ne. loolu yëpp gisuñu ko dégguñu ko it. tey rek lañ gën a mën a def safaan. tey daal lañ gën a mën a def safaan. waaye nag mu ne ñi baax. waaye mu ne ñi baax. baay moo ko nettali. baay moo ko nettali radiyallahu anhu. ñi baax mu ne ñi baax. dañoo ànd ak ñi baax rek ba dañoo ànd ak ñi baax rek. ñu wàll leen seen ak mbaax gi ba ñu baax. ñi bon tamit. ñi bon tamit. dañoo ànd ak ñi bon rek bon. dañoo ànd ak ñi bon rek. ñu yóbbaale leen ca seen mbon ga ba ñu far bonee fa. alhamdulilah bi ñu ànd ak ñi baax. waaye alhamdulilah ba ñu ànd ak ñi baax. ñu mel ni yéen awliyaaw yu mag yi. ku nga xam ne ku leen gis. amul sikk. amul sikk. ne su fekkee xolom bi am na basiira. ne su fekkee ne xolom bi am na basiira. dana xam ne wallaahi nit ñu baax ñaa ngi. dana xam ne wallaahi nit ñu baax ñaa ngi nii. xatamallaahu ala qulubi yàlla kaste na seeni xol. waaye yàlla kaste na seeni xol. seen bët yeeg seen nopp yeeg yëpp yàlla kaste na ko. seen bët yeeg seen nopp yeeg yëpp yàlla kaste na ko. ba mënuñoo gis lu baax. ba mënuñoo gis lu baax. am na ñoo xam ne. waaye am na ñoo xam ne. waxut ma gis waaye su ngeen leen xeeñee rek. waxut gis waaye su ngeen leen xeeñee rek. texe gu mag la ci ñoom. texe gu mag la leen di jural. seen njaboot. ak seen njaboot ba ci seen gétt. moo tax sant yàlla. moo tax sant yàlla alhamdulilah. moo tax sëriñ bi yónni woon nañu ne ñu ñëw fii. buñ ñëwee. ak euh, suufee gu mag. ci ci topp ndigalam. su fekkee wane nañ loo xam ne sax su fekkee ne wane nañ loo xam ne sax du yar. dawut ci moom waaye ci ñun la. dawut mu yónni la. waaye ku la xool. waaye ku la xool. teraanga ak ak teggin bi nekk ci yow. ak yar ak teggin bi nekk ci yow. dëgg-dëgg xam nañ ne mën nañoo roy ci yow. xam nañ ne mën nañoo ci yow. état bi kontaan nañ ci yow bu baax. kontaan nañ ci yow bu baax. ñu koy ñëw foofu. ñu ngi koy wax ndax dañuy ñëw foofu. taxawaay bi nga taxaw. taxawaay bi nga taxaw. di jël sa alal di ko joxe. di jël sa alal di ko joxe. di jël say kàddu di digal nit ñi. di jël say kàddu di digal nit ñi. ñëpp ngay digal. ngay digal. amul ku jullit. amul jullit amul ku dowul jullit. loolu nit ku mag rek moo ko mën. waaye noonu rek la mën a demee. waaye noonu rek la mën a demee. ñu ngi ñaan yàlla may la fan wu gudd yaa rabbi ak wér gi yaram di sant yàlla ci yow di kontaan ci seen doom si Sidi Habib li mu seede ci yow man de loolu maa ngi koy soog a dégg fii mu ne moom day kàddu yooyu mu ngi koy soog a dégg fii suñ demee danañ ko jotal sëriñ bi mu ne suñ demee danañ ko jotal sëriñ bi ak waa Medina yëpp yëpp yéen suñu doom loolu nag nit ñi dañoo war a roy ci yéen yéen seen doom yi. ngir ñu am yar boobu. ngir ñu am yar boobu. moo tax ñu ñëw tey. li tax ñu tànn leen. li tax ñu tànn leen. biñ àndeeg Cheikh Habib. biñ àndeeg Cheikh Habib. ak Baye Cissé. ak Baye Cissé. doomam. Ousmane Cissé doomi Seydi Aliou Cissé. ak Serigne Ousmane Cissé di doomi Seydi Aliou Cheikh Baye Hadi. ak Cheikh Baye Hadi. nga xam ne yéen ñëpp xam na ngeen ko. ak Ahmed Niass doomi Cheikh Ahmed rakki Sidi ñoo bokk papa. ak Ahmed Niass doomi Cheikh Ahmed al di rakki Sidi. di rakki sëñ Sidi bokk papa. Cheikh Baye Mahdi sama doom. Cheikh Baye Mahdi mii ci sama gannaaw di doomi sëriñ bi. ak euh, Seydi Taïb sëti Baye Mbaye Niass. ak sëriñ Aliou ñas doomi Cheikh Ahmad daam al Khalifa di rakk sëñ Siidi mii ñëpp ñëw sëriñ bi def na woon sax ñu ñëw nii sëriñ bi def na woon ñu ñëw nii beneen yoon waaye beneen yoon kenn des fa. mu ne Medina bëggut kenn des fa. macha allah gis nañ ne dëgg dëgg ñëw nga fa ay yoon. gis nañ ne dëgg ñëw nga fa yoon. te loolu yëpp jokk mbokk moo ko waral. Euh, di jéeg di gërëm Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. ñëw na fa ci koor ga. ñëw na fa ci koor ga. ñëw na fa ci sa tur. ñëw na fa taxaw taxawaay wu rafet. taxaw taxawaay rafet. ci guddi laylatul xadri bi. ci xadri bi. am na yu bëri yoo xam ne rek mu ngi fay ñëw. te am na ay xew-xew yu bëri yoo xam ne mu ngi fay ñëw. te su rek. te su indi. li ko wax yëpp. te su ñëwee rek dana andi li nga ko wax lépp. ci jokku mbokk. ci jokku mbokk. ak di fàttali démb. ak di fàttali démb. ak waajuram bu baax bi ni meloon ak Cheikh Ibrahim. ak waajuram bu baax wa ni meloon ak Cheikh Ibrahim. ci jamono président sangoor ci jamono président Senghor. mu métti ci ñoom lool. mu métti ci ñoom lool. waaye ñu ne dimbale njaboot gi nar a ñëw ëllëg moo tax bëgguñ dara. waaye ñu ne dimbale njaboot gi nar a ñëw ëllëg moo tax bëgguñ dara. moo tax def nañ lu nekk. ba tey njaboot gi yëpp sant nañ yàlla. ba tey njaboot gi yëpp sant nañ yàlla. ñu ngi gërëm di sant. di ñaan yàlla yàlla nangul ñu. daf na woon nag suñ ñëwee ñu indi bagage yii. am na fili alxuraani bàyyi. ak kaasi kulil baas. ak ay kaamil. dama firil شكر علنا وقعد لي منه تعالى ولنا عدم توجيه مكارئ القدر من جكسس لأبدا مع الكدر عدم توجيه مكارئ القدر من جكسس لأبدا مع الكدر جاء الكريم الباقي ذو الأراضين الصب والتباقي ما رمت حومن بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى شهد لي ربي بأني عبدو لو قديم للنبي ويبدو هدم بنية أذى يلاحو يقضي الذي نادعني الإله دون مكاتب العبادات معا تغربي كل المذايا جمعا وجه الذي يحبني يبيض يوم وجوه السعداء تبيض أجر الذي ناذحني ولم يتبوا شقاوة تدوم في أم الكتب لبان أن المنتقى وسيلتي صلى عليه واهب الوسيلة يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يبتدر baaxa bi xidmatu nabiyul awliyaa alayhi morida mufiidi nayliyaa karamanil karimu wal mukarrimu bi jaayi man wa nabil mukarramu radiya anillahu wal muxtaaru wa xamiyat kulliyati astaaru man lam yuwaafiqni fi alladi uhib nafahu rabbu ila ma la yuhib hadani alhadi fala adillu faman yuwaafiqni fala yadillu hani maha siwari dawul akbari baqinatani min khayri dhuburi ila siwaya kullu man adani بثار في باق ذكر وهداني ما تورف ذكري ضلالي كما تجود لي بالحلال جاد لي الباقي بما لا ينفد كما ترى مني مبيعا ينفد كتاب ربي يا رفيقي أبدا بي كفاني الله من لم يعبدا salaamatu alladi yaluuzu bil xaliim wa bin nabi bi yamin al munfaxiliim shakartu man lii laa yuwajjihul kadar fi abadin wa qaada lii bisral qadar shakartu man lii laa yuwajjihul kadar fi abadin wa qaada lii bisral qadar shakartu man lii laa yuwajjihul kadar fi abadin wa qaada lii bisral qadar yaa man bi am daayihi li yuftaxul baabu dunya wa uxra wa du nadaraki albaabu yaa man bi am daayihi li yuftaxul baabu dunya wa uxra wa du mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax jot leen nuyoo bi ca kilifa ga fa tabarakallahu gis nañu yitte ji bu baax a baax xam nañ ne yitte ju kawe la ndax ni ma ko yitteele ba tax mu tànn njabootam gu baax gi yebal leen fii muy tànk yu yu diis yu tànk yoo xam ne yu baax rekk ko tax a jóg ndax xam nañ ne eh, jéego yooyu ñu ngi jëm rekk ci euh, gën a dëgëral diine jóge rekk ci fonk diine ndax euh, ni mu ko defe tànn njabootam bu baax gi jóge ca dina bàyyi jëm si fi ci Tuubaa lépp ngir dundal diine rek la xam na loolu bu baax a baax a baax ba tax na indi eh, nu cant gu rëy rëy rëy indi nañuy soññ bu rëy rëy ci nu gën a nekk ci sunu wartiif te nekk ci suñu wartiif eh, jaamu yàlla rek moo ci jiitu lu ca dolliku muy muy defar bokk kon nag loolu soñu nañu ci yaar yëpp soñu nañu ci diine soñu nañu it ci defaru bokk ndax ndokk bi nga xamee ne defaru bokk yu baax yi yi dul farata yëpp mm-hmm. defaru bokk moo ci jiitu te lii dundal diine rekk la ak defar bokk xam na loolu bu baax a baax a baax a baax kon loolu soññ nañu bu baax a baax a baax kon amuñu ci daal loo xam ne moom lañ ci wax loolu ak cant rek cant gu rëy rëy gis nan jëf ji bu baax a baax jéego yu sell yi nga xam ne suñ suñ suñ mbokk yu baax yi jóge ngeen ko ba fii te lépp di lu baax rek muy dundal diine ak defar bokk loolu yëg nan ko bu baax a baax sunu xol sedd na ci sunu xel gën na ci daal sunu yaakaar it gën na ci yokk lépp rek nu fas ni ko delloo ci gën a takku bu baax a baax gën a dëgër bu baax a baax a baax ci rekk dundal diine ak gën a sàmm wëllëre bi wëllëre bi wëllëru yàlla rekk la kon koy fas yéene noo euh, jataay bii euh, noo ngi ciy fas yéene gën a euh, fàddali bu baax li nga xam ne moo dox suñu diggante gën a gën bu baax a baax wala wu rëy wu rëy bi nga xam ne moo dox suñu diggante fas yéene suñu digg yëpp nu fas yéene ko gën a sàmm euh, gën leen cee gàttandu bu baax fas yéene ko ànd ak yéen sax dàkk rek sàmm diine Euh, dundal diine euh, ak dàkk ci liggéey lislaam loolu rekk mooy moo nu fi bàyyi ndax moom rekk lañ fi fekk kon loolu xam na ne moo fi bàyyi moo ngi sant bu baax nag ci yaakaar ji nga xam ne euh, sëriñ ba am na ko ci nun ba yebal leen eh, ngeen jéego jéego yi ngeen jéego ba agsi fii ak seen njëtaay bu rafet bi hmm, loolu jooju yaakaar eh, waaw dañ koy soññee suñ bopp rek gën ko sante suñu borom bu baax a baax a baax gën a ko sant moom eh, Cheikh Ahmadul Xaami Maahi noo koy delloo njukkal ko cant cant gu rëy rëy rëy yu gën a tàllal loxo parce que ni gën a ànd ak moom lépp ci nekk ci suñu wartiif muy liggéey lislaam na ngeen nu ko jottil euh, ziyaare sunu cant sunu gërëm ak mu xam ne gën nañu soññ nañu bu baax ci lu nu li war a nekk noo ngi gën a di ko gën a xamal ne ko rek noo ngi gën a feddali sunu laxasaay fas yéene ko fas yéene gën a ànd ak moom lépp ci incha allah sax dàkk ci liggéey lislaam loolu jotaay bi ak jéego yi ak kilifa gëm jógee ak seen jataay bi rëy na ci ñun rëy rëyaay boo xam ne amuñu ci le xamuñu ci lenn lu ñuy mën a wax loolu muy muy mu di cant lépp ak cant la lépp ak cant rek la ak soññ suñu bopp jërëgeen jëf jërëjëf ñu ko siyaare bu baax a baax a baax